bis la yàlla génne ruuga tuuba yóbbu ko barsak mu dend ak bamba ruuya fa nekkoon keroog yëpp ya amaare di teru ruugay soqi say xawaar barsak jël na waaju am ja teraanga moo nuy fegal te yëpp barsak jël nga waaju kam kam kam xam def itteem ci sakku ba barsak jël waju am jam makam sanga ba faw kuy borom makam di serigne Mbàkke Muhammad yalla dogal mu mak ci njabotuk serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma jëkk ko wuutu gannaaw fa mag ña bayiko ko rek fofu la bayiko ko ci ak bokk te loolu dafay loo loo am solo moom nak ci kokki la bokk li fa mag ña bokke ak ndam mom soxna lo job lo waajuram wu jigen tuddu soxna Lo jom moom yi Mor janda moo ko jur Mor Jànd Masamba Gàdd Masamba Gàdd ndago ko jur ndaag ak xarimaam ak Mariama ak Penda buya ak Samba Aminta ñoo bokk ndey ak baay Njaga isa leen jur moom waxtaan ci lu jafe la donte lu yomb la lu jafe la ndaxte ñim ni ko waxee ci ben dañu bari te ku nekk jëflante na ak yow ak biir ak ak biti te buñ ne ñu ngi waxtaan ci moom ku ne da ngay toog di déglu la nga jàpp ne moo ëpp solo ci lu mu ak yow wala loo xam mu jëflante koog nit te mën naa am loola mën nañ ko bañ a dégg ci waxtaan wi loolu mooy jafe gi yomb na nag ndax it ab jullit la woon ab taalibe la woon nitug diine la woon te gor la woon soo xam ne lépp luy jikko yu baax lépp yu jikko yu rafet lépp luy jikko yu ñu tànn yu ñu gërëm yu sun boroom joxoñ ngir ab jullit war ne mel melokaan yooyu meloon na ni. sëñ Mbacke soxna loolu nag euh, dafa nekk nit koo xam ne euh, waxtaane ko dafa yomb ndax waxtaane nit ku baax euh, dafa yomb sëñ Mbacke soxna loolu nag mooy kenn ku ne xam na ne.

dafay fekk ay kàngam yoo xam ne kàngami sëñ Tuubaa lañu woon ñu kuri ak sëñ Modou Moustapha mu nyepit ku rëy ab jës yaatu lool xalaat bëggal ñëpp it jàmm yéene leen ko te di ko jamono ju ne damay wax ne ay ay daawi fu daawi su fa diwa dif sëriñam wala ki ci tarixa sangam la bok wala sax ki ab julit wala du ab julit lamuy seen ci yow di xol moy bind gi la sun borom bind nga nuroo ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te daf ko beggon lol dafa am ben domam bu mu don joxe moy jang alquran kam ko don jox bu mu ñewé da ko ne ki day muhammadu rasulullah la ko tuddé li tax ma jox la ko moy dama bëgg mu bari xam-xam ndax dama bëgg lool kuma ma ko tuddé waye kéré bañ koy denc tamit sëñ Mamadou Muntaxa mi nga xamné mo fi sëriñ touba tay yel nako suñu borom yagal te ko yam séré ci mom doyna ngir né mom kat ku bëgg yonent bi la dafa am bi sëriñ Cheikh Mbacke and ak sëriñ Mbacke soxnalo andi ko ci sëriñ Basiiru né ko ki day moy sa taw sëriñ Mbacke la tuddu dama bëgg nga ñaanal ko né ko nak mbolim jikko yu nekk ci yonent bi alayhi wasallam mi ngi ci mom né lool lool sëriñ Cheikh séré ci kanam sëñ basirou ci sëriñ Mbacke soxna Lo mi nga xam modib moo mi ngi feñ itam ci 1934 mom la feñ ci nayde Mbacke nayde di dekk bo xamanteni ni Cheikh mohammedou mustafa moko ko don fa leggeel yalla ginaaw bi mu deul fa sëñ Cheikh ya, ginaaw bu am jangam maté fofu la seigne mohammed gane aduna ñu jaarale ko itam fi ñuy jaarale nit ku baax. fi ñuy jaarale doomi soxna mooy jàngal ko ba mu xam yaral ko ay cëram tàggatal ko ba mu nangoo jaamu yàlla moo tax muy wax ni fa sun borom joxoñoon rek foofu la teg tànkam sama diggante ak moom nga xamante ne bii bu ñëpp ma sant di ko séntu maanaam bu ma séenee may ñëw ñëpp defarwaat ñu sëñ bàngoog te bu may ñëw damay fecc mhm. euh, loolu man maa ko ci jublu woon maa ko ñaanoon ndigal itam ba mu may ma ko mhm. Euh, li ma ci jublu woon itam mooy bët yi nga xamante ni bii ñooy bët yu bon yi ak làmmiñ yi yëpp ma tegoo ko waaw ñaan ko ni ko loola dara dal lu ne yàlla ma dal bëgg gu ma ko bëgg euh, ndax moom dafa bëggulu waaw ndax yaakaaroon ko ba pare mu yàjjaaral ba ñëpp ñëpp raw ko ko ba pare mu des ginnaaw man gàcce rek laa ragal te mësuma koo teg waaw kon euh, aw lul sama bopp aw lul sama jëmm aw lul sama roo. ba ma ba ma sëñ Abdou Lahad wàccee ma war liggéey ma ñëw ne ko man kat sëñ bi daa sëñ bi daa wàcce daa bëggoon liggéey mu ne ma seetal loo bëgg a liggéey nga wax ma ko ma jàppale la ci ne tukki dem Gabon mu ne wax kon damay dem Maroc suba waaye na nga ñett fan laa fay def ñëw Dakar soo ñëw xaar ma fa boo ñëwee ñu ma dem Dakar yàlla dogal mu jógee Maroc ñëw woonu ma ñëw. te mu jox ma fan ne ma téye def def ko attané poste xaar ma Dakar ñetti fan yi su ma ñëwee ne waajal dagal bii nga wala sama nekk Gabon nga dem mm-hmm. ni ko yàlla def noonu la def ñëpp ndax dafa yéene ñëpp teranga bëgg a dimbali ñëpp bugul kenn sonn dara de moom dama ne bu doon bubb mu ñuy sol mm-hmm. mën na ko sumi ablek wala mu maye ko ndax yéen na ku ne nga mel ni moom mm-hmm. ndax dara jëm lay jox ak fi mu lay teg ak ni mu bëgg nga mel ni loolu doo xam sax lu tax loolu waaye noonu la ko yàlla bindee kon mu nekk baax koo xamante ne bii wax dëgg yàlla eh, baax mënut a weesu mu baax waaye nag yàlla fay na ko ndax bam fi nekké it nit ñi jël dox nañ ko té yegg nañ ko té it dem na ba am ngërëmul yalla ndax ngërëmul yalla la ñëpp wut té am nako té wax nako ku gëmoon yalla la ku ko doylo won la té loolu dafa jara xam ku bëggoon sëñ tuba la nak ndax bëgg sëriñ tubaa aggoon na ci fo xamné ne mbacké nit musta mëna a toog ak mom di waxtaan sëñ tuba té jox so wut jël bi lu ko jege won la waaw ndax ben bis dañoo tok rek am ku ñew indi xasida suba tel, ma diko bes ni ba ci ag am ku feug yeengal buntu bi mu ne ma xol ko ma ubbi muy ku yor ay adiya ñew nuyu ko ba nopi joxale ko ay qasida ba mu deme señ bi yëkkati xasida ci xol yam ci mat shifa yi di ko nak ba ci ag señ bi daldi daldi xolal li rek ko xamne da nga mel yow julit ñep fa innahum daldi wax ne fa innahum wa in asawka ya ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika li dox fin yasaru dakoy koy da ba ci àgg rek mu yiw bi mu euh, joge ci beug gi serigne touba itam nak fonk gi sëñ Modou Moustapha itam foko ko dako da passé fonk gi serigne mourou Moustapha serigne serigne mourou Moustapha man ñu wax ne euh, sëñ Mbàkke Lo ab idolam la woon sëñ ba Mbàkke itam bi mu mu jël cofeel googu sëñ Modou Moustapha amoon ci moom delloo ko ko nag ko waaye ba mu am kilifa fana, kilifa gi mooy kan mooy sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma donc sëñ Mbacké Soxna soo ko xoolee trajectoire am bëgg yàlla wóolu ko gëm ko bëgg ko ba pare nag am fu mu teg Cheikhul Khadim kooku benn affaire la wëlbatiku nag am idole idole bi kan mooy sëñ mu Moustapha ba tax na gan ñim sëñ laa Lahad daan am ñu fonk ñëpp sëñ Mbacké lay woo wax ko mu teeru leen te toppatoo leen te teral leen ndax xam na ni itam ku xamoon teraanga ba bi muy yónnee Guinée ca Cheikhou Touré gannaaw bu fi Cheikhou ñëwee ah moom la ci yónni sëriñ Moussa Saliou ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoo àndoon ca délégation ba euh, nit la woon koo xam ne daal ku mënoon a toppatoo nit la ku amoon respect ci doomu aadama la waaye su ñu ñëwee ci sëriñ Saliou mi ak sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo wut sëriñ Abdou Khadir Abdou dafa fonkoon lool sëñ Mbàkke Soxna Lo bëgg ko lool ku bëggoon sëñ Abdou Khadir la. bis sëñ Abdou Khadir da ko ne dinaa ñëw Taïf waaye ca yoon wa sëñ Modou saa daan jaar laay jaar loolu bi ñu duggee nopp sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke dane xam naa duma ko mën a tëli de diggante bi waaye danaa fexe danaa ko fàkk wala danaa ko rang-rang ba balaa sëñ Abdou di ñëw mën a jaar ci yoon wu neex bi mu demee Taïf daa daal rëddu bâtiment boo xam ne moom sëñ Mbàkke dane sëñ Abdou Khadir du fi ñëw mukk ma di ko dale ci bâtiment bu nit ma sa fanaan bâtiment bu bees muy bâtiment Raïs be ñu doon ko wax tamit bâtiment Moustapha Cissé yàlla dogal ci nammeelam ak coobareem keroog yëpp meuble yu français Italie jóge Italie ñëw Dakar ci guddi googu la si ñëpp xaadim nag bu bokk ci ay jikkoom nag yoo xamante ni ndaw ñi war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax te mooy woyof mën a muñ yaatu tabe lewet gore dégg ndigal yi képp koo xam xam ne moom te jikko yooyu dong la ñuy la ñuy la ñuy tagg ab sang képp ku ñu ab sang nag te jikko yi négul ci yow ba nga xam ne ña la wër dañ lay nax jikko nag nit da koy ji ci boppam di ko suuxat waaye ñu dund ak moom dañ xam ni col gi da ko taarale lislaam waaye ak woyof lay dund boo ko fekkee ci milieu famille fa mu ne mu solub karabu bu perkaal wala mayluus da ngay jàpp ni kiñ la doon tegtal du kii waaye bu ngeen jëflante nga xam ni mooma dafa am bis sëriñ Mbacke booba sëñ Cheikh ngi fi sëñ Mbacke demoon Madina ziyaare ji sëñ Mbacke Madina ci jamonoy sëñ Cheikh jóge fa nag di ñibbi Taïf jaar njurul fekk sëriñ Saliou ci tool yi mook dong yi ñuy watt gerte sëñ Mbacke ñëw nuyu sëriñ Saliou sëñ sëñ Saliou ne ko sëriñ de sama gerte gi dana ruggi dana ruggi ruggi ci ñu xamut ruggi mooy gerte goo xam ne biñ ko daataan déqi wow na ba boo koy déqi doom yu ci bari day des ci suuf nee na bi ko sëñ Saliou waxee loolu ne ko sëriñ di sama gerte gi doon ruggi sëñ Saliou sëñ Mbàkke da ko naa mën naa bañ a ruggi de mu ne ko ah, nu may def ba du ruggi mu ne ko xam nga nga seppi sa loxo ci ci ci wattu gerte bii ngay watt yaag taalu bi te dellu ci kër ga toog te dellu ci daara ji toog loolu daal boo ko defee daana mën a waatal ne du ruggi sëñ Saliou daal di raxasi loxoom ànd ak taalibe yi dellu ci kër gi sëñ Mbàkke daal dem Taïf dajale baa Taïf ñëpp ànd ak ñoom ñu ñëw liggéey liggéey ba ba mu sontu nga xam ne wax nañ ne keroog ba ñuy ba ñuy bu ñuy bu ñuy déqi ba mu guddi sëñ Mbàkke day taarub otoom dem ba ca kanam ñuy déqi taal lumière yi ñuy déqi ba agsi fu moom mu arriéraat ba sori euh, taalaat lumière yi noonu lañ doon déqee loolu moo taxoon foofu la liggéey bi tàmbale woon ndax bi mu koy def itam booba euh, su borom may na ko bayre bu xamante ne bii Euh, maanaam xam na ni xajatul fenn daanaka li ko war rek mooy mu rangé mu ñëbbi waaw bi mu agsee oto bu ñuy wax Hyundai la dugg ku ñuy wax Xaarim Njaay moo ko dawal bi mu agsee dafa wax ni ñibbi bi mu koy wax dañ jàppoon ni sëñ bi dafa dafa bëgg jur daf ñuy tooñ rek waaye lii mënu ko parce que ni ko ni ko ni ko jamono so tàllale loxo ni ko jamono soxlaa adduna nit day tabax dooram fa dugg baa mu sakket baa mu barak baa mu sengi wëralee picc day tagg jinax day gas fas yam koy wuddal xar dañ koy gittal ginaar dañ koy ngudóom te dama la wax sànq ni la mm-hmm. ku wax feeñ waaye jëf ku ko ku def yaa weer sa bopp coobare yàlla feeñ na ci ci ni taxawaayu waajur yi feeñ na ci ci fiñ ko jaarale bëggu boppam muy jomam feeñ na ci te jom ba jom jeex mooy bañ a ñaaw rek kepp loolu dong la jom di tekki jom mooy bañ a ñaaw rek te génération bi mu dund boo ci doon wër moroomam da koy wàññi ci ay baaraam su fekkee da nga lem benn moo tax ma ñu jàkkeeru muus la man ngaa dajale junni muus doo ci am benn waaw tuuti ci kanam ak dundam boo koy waxtaanee da ngay defe ni aw lépp la bu fi jaaroon waaye dañ jàpp ni nit wër te mën a mel noonu te fekk lu mu incarné la di dox ba ba ca. waaye itam loolu moo doxoon diggam ak tarixa yépp diggam ak Tiwaawoon diggam ak Ñaseen diggam ak diggam ak yooyu yëpp teraanga yu bari bari yoo xam ne am na ci loo xam ne lu nu xam la lu nu fekke la ndax bari na ci lu jaar ci suñu loxo. loo xam ne ci ci ca loola la jëm lu tuuti nag ci lu bari loo xam ne ci yeneen loxo la jaar. yoo xam ne dafa jëm ci ñooñu muy ay teraanga yu mu doon seq seen diggante ak ñoom waaye amul kenn koo xam ne daana la jox. ak li nangu nangu di metti ak loo doon doon su gor sëñ Mbàkke di la jox muy diis ci yow wala muy metti ci ndax ni mu koy jëfee maanaam dafa xarañoon ci joxe ndax benn léeg-léeg su lay jox dara baat yam koy booleel xaf ga mu koy booleel waxtaan ba mu koy booleel ba bu la koy jox day woyof ba da ngaa day mujj mel sax ne yow daal loo ko dénkoon la ñëw di ko jël si wala muy dënk liggéeyal ba mu di la fay loola law doom du metti benn yoon ci yow. wax ni sëñ Mbàkke moo ëpp njariñ am nawet. ndax ni ko sun borom binde nga xam ne noonu la doon dundee wax dëgg yàlla wéet na ci torop torop torop malaakam soxla la woon moo xamante ni nit dawul làggal soxla da koy rey ndax daa xàmme woon ñaar mooy dimbali nit ak faj soxla am na ci ma leen moo xamante ni daa soxla ñëw ci bokk yi comme ci waxal ni ko nag dama am yitte joo xam ne daal na maa jaaxal kooku wax ni ko yitte ji moom sëriñ dong laa fi xam ci ko mën a faj sëñ Abdou Fatane sëñ Fallu mi ci la ñu wax ko ko sëñ Abdou Fatane ni ko yitte jooju moom sëñ dong laa fi xam ci ko mën a faj mu ne ko sëñ dama ko miinul mu ne ko loolu du ci dara demal ñëw Taïf wax ceeg sëñ bi sëñ bi jox ko lu ëpp yitte mu dikk moom it au lieu que mu ko ci yitte ja mu def ko ci yeneen yitte bàyyi yitte ja ko taxoon a jóg bis muy waxtaanal ak sëñ Abdou Fatah ba tuddaat ko yitte ja sëñ Fatah ni ko xanaa demoon tey mu ne ko ah demoon naa fa kay sëñ ko joxoon na ma loo xam ne ëpp na yitte ja waaye damaa ñëw am ñeneen kii ma def ko ci mu ne ko dellu ah, mu ni ko ah sëñ joxoon na ma mu ni ko fàtte na ko xamul ni ñëwoon nga fa sax te loolu mbokk ko seere naar moo ñëw ci moom ne ko sëñ bi dama damay bëgg dama bëgg gëstu sëñ Modou Moussa te bëgg ku ma dimbali sëñ bi ne ko ne ko daal di wax sëñ bi ne ko it dama bëggoon nag dëkk yi mu sàncoon yëpp ak mag ñum jaxasoo doon te des fi fu ci ne bëgg naa faa dem laaj leen sëñ ne ko kon bu subaa ci waxtu sàngam nañ fi delsi bi naar bi jógee rek am na mbokk mu toogoon fi moom ab taalubee ma moom ko nettali fekkewu ma ko nee na ma ne sëñ bi naar bi di waxul dëgg xaalis rek la bëgg sëñ bi ne ma ne ko diw mu ne ko mbàkke mu ne ko loo ci xam-xam naa ci ko ëpp waaye nit ñëw wax la soxla na nga mën ko defal ko ko du mbaax wartif la mu ne ko lu lu di mbaax mu ne ko ak mbaax mooy nit ñëw wax la loo xam ne lim la wax wóor na ne dara du ci dëgg lim la wax waxuma la xam gi nga xam ne du dëgg waaye da nga koo nëbbu ba xamut ne xam nga ne waxu dëgg mu ne ko loolu di mbaax sëñ bi ne ma diw ma ne ko mbàkke mu ne ma na ngeen def attention ci yool ndax du ne foo defee lu baax rek yool daal di jóge fa mu nekkoon ñëw ci yow mi def lu baax sëñ Mbàkke nee na fa waxtu woo defee lu baax balaa yool ñëw ci yow mi def lu baax moom yool day jaar ci xelum ki nga defal lu baax def ci ci ki nga defal lu baax jaar ci xelam ne ko def ci xelam ne ko yàqal der ki la defal lu baax nee na kooka nga defal lu baax yàq tàmbalee yàq sa der bëgg dégg ko sëñ Mbàkke nee na waxtu woo ko déggee rek diw ak defal mu yool dellu fa mu jóge woon sëñ Mbàkke nee na bari waa na ko yàq der nee na yàq der du jikkoom waaye yoo la fa jaar xam nga léegi li xew ci jamono mooy koo dégg muy wax danaan man def lu baax jigu nga ne lu tax mu ne diw ma ko defee lu baax lu bon la ma fayee moo tax bi mu joxee naar bi oto naar bi dem am trois mois dellu si ne ko bëgguma bii lago naa laa bëgg sëñ Mbàkke mën naa gis boppam waaye boobaa yoolu dellu fu mu jóge woon ba mu ko ko waxee néewut kii daf maa yëpp néewut kii dafa réew dana naar bi da am na fulla akonde ah, de boy bu ñu lijeental comme la ko waaye bu fa nekkon na nar bi lima ko defal mu jox ko mu nang rek yol delu fa mu jóge ci aduna ya ka meuna wor te bono bon te bëri lor te bëri tis ak nakar nakar lo nga wa keur borom tayif borom tayif xeyna rañan dem na fa fil jinan, wali bihi damur janan suñu mam serigne mbàkke soxna lo sagam yu ne mes serigne touba momi nefes aduna mom kenn du fi dess liyeey dem ak boroom tayif bisu keroog la ñépp wet daara yi wéet école wéetal nga ñu borom tayif boroom tayif faaxari jaal borom tayif bahru kamal këram nga mooy daaru janaan sigil nga ñëw borom tayif borom tayif amul moroom tabeeg lawet moo di jikkoom am na ngërëm ci suñu borom wàcc nga yow borom tayif